jot ci toppatoo wérgu yaram NYC Care New York City Care nekk na pexe yi gën rëy ngir garanti wérgu yaram waa New York te du jote dara ak seen nekkinu gàddaay wala seen mënuk fay NYC Care nekk na programme jot ci toppatoo wérgu yaram ngir waa New York yi mënul am assurance assurance wergu yaram bu wekku ci sart sartu dëkk bi New York City Care dafa laay dafa lay garanti ay mëneef yu yomb njëkk wala boo dul fay bàyyi ko ci NYC Health plus Hospital maanaam hôpital waa New York yi ñu mën tànn ngir assurance assurance wu wérgu yaram dinañu leen digal ñu dem ci ab plan plan gu wér gu yaram bu public ci site internet bii di https deux point tiré tiré euh, euh, slash slash metroplus point org tiré yoon yoon yi ngir bindu gisee la ak ki nekk NYC Health Plus Hospital te nekk digalkatu wàllu koom wala nga gisee gisee walla nga gisee ak wàll ak ak wala nga woo ab ndaw ndawu metroplus Plus gisal ay aji bokk liggéey yu bàyyeekoo ci askan wi ci site internet bi di https deux point slash slash www nyc care new york city care point nyc tiret community c o m m u n i t based BASED tiret organisation slash ngir am yeneen xabaar xibaar wooteel ci 1 646 692 22 73 New York City Health Plus Hospitals NYC Health Plus Hospitals am na ay barab ci biir dëkk bi dañuy joxe ay mëneef mëneefu teew ak ci jokkoo ci xarala yu yees yi bokk na ci toppatoowu jëlbeen toppatoo bu jàmp wérub xel ak mëneefu xejjiku ngir jàpp ab digg daje mën ngaa woote ci 1 844 692 46 92 bu dee ci Bronx NYCNYC health plus hospitals Jacobi mu ngi nekk ci 1400 Pelham Parkway South ca Bronx New York code postal bi di 10 461 New York City Health plus Hospital Lincoln ma nga nekk ca 234 East 149e Street ca Bronx New York 10 451 New York City Health Plus Hospitals North Central Bronx ma nga nekk ca 32 24 Kossuth Avenue ca Bronx New York 10 467 bu dee ca Brooklyn New York City Health plus Hospital Kings County ma nga nekk ca 451 Clarkson Avenue Brooklyn New York 11 203 bii tamit di New York City Health ca Brooklyn ma nga ca South Brooklyn Health Ruth Bader Ginsburg Hospital 26 01 Ocean Parkway ca Brooklyn New York trent cinq bii tamit di New York City euh, Hospital Woodhall ma nga nekk ca 760 Broadway Brooklyn New York cent 206 bu dee ci Manhattan New York City Health Plus Hospitals Bellevue ma nga ca 462 First Avenue New York New York 10 0 116 bi ci tegee di New York City Health Plus Hospital Harlem ba nga nekk ca 506 lennox Avenue New York New York 10 037 bi ci tegee di New York City Health Plus Hospitals Metropolitan ma nga ca 1901 First Avenue New York New York 10 029 bu dee ci Queens New York City plus Half Elmhurst 79 tiré 01 Broadway Elmhurst New York 11 373 bi ci tege di New York City Half plus Queens ma nga nekk ci 82 tiré 68 164e Street Queens New York 11 432 mëneefu wérgu yaram NYC maanaam New York City 988 mooy sa jotin ci taxawu wérgu yaram yaramu xel boodul fay dara te ànd ak sutura waxal ab waxal waxal ab digalkat ci téléphone message wala waxtaan ngir jot ci mëneefu wérgu yaram war yaramu xel ak mbir yu jëfandikoo mbiru jëfandikoo sineebar taxawu la ci lépp am nañu lu toll ci ñaar téeméeri làkk jàppandal na ci yow ci bépp waxtu ci bés bu ñu bis bu mu mënti doon ci làkk bu mu mënti nekk wooteel walla nga message NYC 988 ngir jot ndimbal bi nga soxla toppatoo wérgu yaram ci wàllu njur su fekkee ni da nga ëmb dëkku New York am na ay mëneefu wérgu yaram yaramu wàllu jur ak programme yu assurance yu wérgu yaram dëkku New York am na itam clinique yuy dimbali ci mbir yu bari ci wàllu ëmb lëkkaloowu jaboot saas faamu département wu wérgu yaram maanaam health departments nurse family partnership mën nañu jokkale yaay yuy jëkk a am doom rax ci dolli saas faam yi ñu tàggat saas faam yooyu dinañu la seetsi ci sa biir ëmb te ci ñaari at yu jëkk yu xale bi ngir dimbali la sa jaboot nekk ci wérgu yaram mën nga cee mën nga cee bokk ci sa ëmb ni nga ko bëggee waaye warul romb ñaar fukk ak ñetteelu ayubés clinique wérgu yaram yaramu awra maanaam sexual health clinics yi nekk New York City dañuy joxe ay mëneefu fay lu ndaw wala bañ a fay ngir feebar yi wàlle ci sëy moo di sexually transmitted infection bokk na ci sida hiv képp ku am fukki at ak ñaar wala lu ko ëpp mën naa jot ay mëneef ci bépp clinique te du ñu ci xool nekkinu gàddaay way yi ànd ci nekkul wareef wooteel ci numéro clinique gu wergu yaramu awra maanaam sexual health clinic hotline bu New York City ci 347 396 79 59 ngir mënee paj mu sori yàq ëmb woo wóor na te yoon nangu na ko ci état wu New York mën ngaa gis ab defkatu yàq ëmb te yeneen pexe yii ci woote ci kuréelu jot ci yàq ëmb maanaam abortion access hub altine ba gaawoo ci diggante huit ci suba ba huit ci ngoon nga woote ci numéro bi 877 692 24 82